ci la feeñe ci la delloo woon waxoon nañ ko xanaa li ñuy wax ak liñ ci liñ ci bëgg a boole rek mbaa liñ ci bëgg wetal lañu koy jéggulu ko tedd ki waaye dañoo jàpp ne dara génn ko moom moom lépp ak ñëpp donte lii ci li may bëgg a wax ci fan yi ci kanam la bokk sax waaye dama koy génne ndax dama ciy wutal aw Bakar Feggu Serigne Moussa Nawel ci Idrissa Seck e, moo tax bayit wii ku tedd ki wax ni waajaxani bil xayri kulla yow mi wa kulla shahrin wa aqudu qawmi bayit di ku tedd ki wax ni le bien de tous les jours ak tous les mois yàlla jox na ko ko ba tax muy guider peuple am waaw aqudu xawmi gi yenn rek gi nga xam ne dafa wëcc nga xam ne moo mujj ci xawma gi ci baat bi yenn rek gi wëcc ci leeram ci lay wutal Idrissa Seck Aboubacar Feggu ngir Serigne Moussa Nawel loolu itam dafa am lu ko waral li ko waral mooy damay dégg Idrissa Seck di wax xadd fakk kabla xadd ba fadd la fa zurru wala wa nafu jaay nga xam ne bu dul woon ak fi nu jaar maa ngi moom itam faw ma am ci moom shawxa ngir loolu déggaat ko it mu naan yaa rabbi in ataytani fa shukru wa in manata fa riddan wa sabru hmm. kon ni ma amee la Macky soutien noonu laa amee la Idrissa soutien Macky dama ko amel soutien ci jërëjëf Serigne Bamba Idrissa itam ma amel ko soutien ci xasaayiti ko tedd ki waaw Bakar Fegg yu ma ko ciy defal nag Serigne Moussa Nawel dafa am loo xam ni yeneen na ko ko te mënu ko waaw te man ku tedd ki man loo ma ko Serigne Moussa dafa koy ñaanal man ma man koo bàyyee ñaan gi ba noppi moom man koo jàppalee ci Zahir moom Idrissa loolu nag dinañ ko sax ca kanam loolu ci fan yi ci kanam am na sortie médiatique bu ma war a def boo xamante ne bi lii ci la waroon a génne waaye dama ko koo anticiper soutien la bu ma koy anticiper ndax li ku li chey in agel gis nga soutien yi ma doon mag yi ci jamono yi ci gannaaw yëpp gis nga ko waaw noonu laa amee la ñi nar a dooni candidat ñëpp ay soutien waaye ku ci nekk nag ak la nga yellool ak bu jotee ndax waxtu yi bokkul seulement li ma leen ñawantee rek mooy coono yi ñu leen dugal li ñuy tuddee parrainage fu ne ñu fay wër ci réew mi di wut ay signature di sonal ñiy signé di sonn ñoom ci seen bopp coono yooyu yëpp mënoon naa ñàkk wax dëgg yàlla ñoom yi ñu waroon a def rek annulé yëpp wut beneen solution waaye lii yi moom yi ñuy def nii dara day yëngalum réew di yëngal xol rek waaye dara du ci solution dara mënu cee jur dara waaw réew dafay toll foo xam ne dañoo war a bàyyi xel la recommandation divine réew day toll foo xam ne bu ñu dee ay croyant dañoo war a bàyyi xel waxi ku tedd ki waaw